ndax yow nan nga jàpp ne euh, gouvernement bi war na ko mën a composé woon ndax war na mën a am ñoo xam se ni ci opposition bi lañ bokkoon wala tamit euh, est-ce que amul ñoo xam ne dinañ mën a bokk ci kaw pouvoir pour mën a ñëw bokk ci euh, li nga xam se ni moo di ci gouvernement wu Diomaye bi. je suis très content Sonko bu mu waxee loolu comme li wax Diomaye président Diomaye n'est pas le président de pastif ni le président des patriotes c'est le président de tous les Sénégalais mm. donc tey jii moom.

du question la am dara question de paré am compétence liggéey la. compétence donc compétence ngeen intégrer ci ay poste mais loolu mais <laughs> loolu moy yondi aujourd'hui toi yow bo amone compétence présenté do fi toog ni ku si nekk da ngay am compétence ci li ngay def boko mënul nga dem sa morom ñëw c'est pas compliqué. Hmm. moo tax nag réew mi mom nañ ko tek lepp ci compétence ko amul xam-xam de man nga jangi ndax fu mu toll nii fii ñu jëm jamono ji ñu jëm ah jamono ji jom xam-xam moo koy diriger. Ah, ah. Euh, comme ni na tok bi dox jeex na mais <coughs> comme euh, wàllum euh, comme que Diomaye jamono ji nek 5e président de la république. Mhm. ñu bari ñi ngi laaj nan est-ce que. dañuy fayantoo ak régime bi nga xamante ni mom mo fi nek wala day parce que bo xolé Macky Sall liko tardel ci premier mandat bi lu bari loolu la ñëw di régler waat wàllum justice bi est-ce que nekul ne day bàyyi justice defal bop defal defal yoon bopam mhm. léegi bop mu continuer ci ay projet voilà effectivement wax c'est que da poser posé question par tontu ko mooy président Macky Sall dafa def erreur et puis erreur nous ñu gis ko duñ ci waat même su des noms tey dit def nous leen lu donc metti ndax ça fait des années nous ngi leen di traqué. Diomaye mm. def na prison ci wàllum poste def na prison juste uniquement dafa def poste sur Facebook hein Sonko jàpp nañ ko ci vol de téléphone.

ñi ray ñu xam ñan la ñi commandé commandité ray bi ñu xam ñan la ñi japp arbitrairement ñu xam ñan la ñi commandité loolu tamit ñu xam ñan la il le faut moo tax cette loi d'amnistie là tôt ou tard dina tëb. Hmm. ne vous inquiétez pas mais comme eh, yaa ngi wax sank ne Sonko ak jomay fay ñom nee nañ baale daj

Diomaye def fa def na fa 9 mois su ma juumul xaw ma 8 10 mois. waaw 1 an. Sonko def na fa 8 mois 7 mois. mais ñoom du ñu tëdd tëdd bu ñu tëdd prison baale nañ ko. li ñu leen doon toppee baal nañ leen ñoom it baale nañ parce que nag Sonko bokk ci amnistie bi ah. il faut mu leer tamit. ah Sonko voté na. Sonko bokk ci jotaan na ay waaw jotaan na ay Sonko bokk ci am parce que tout simplement les les charges ont été abandonnées. il mu leer. Hmm. <laughs> état judiciaire de l' état dafa avancé. mais affaire Mame lépp affaire Mame de loolu yëpp teg ko ci suuf. avant euh, non avant non si mbiram ak ah. boobu ak maanaam wàllum euh, mu génne ko ci liste électorale yi. parce que hmm. agent judiciaire de l' loolu la doon def. liggéeyam loolu la woon pour mu bañ a nekk candidat. et effectivement mom liggéeyam loolu won nek loolu parce que agent judiciaire de l' moy nga yorel état xaalis ñu la topé mm-hmm. mais mom c'est la première fois ñu gis agent judiciaire de l'état état di topp un opposant pour mu baña bok ci élection léegi nak charge yi ñu ko doon topé abandonné nañ ko donc amna sibi dóor sax jarul sax ñu ci wax wax ju bëri ko parce que moom dinañ ko dóor moom. Euh, euh, euh, programme bi ñu ngi ciy gis ne Diomaye day teg li nga xam si moo di poste vice président. Mhm. léegi nag ñu bëri di question bi nga xam si ne moo moom la ñu jot yu bëri ñu naan poste vice président bi est ce que tegu ko pour Ousmane Sonko mën mën a bokk ci gouvernement bi am sax ñu naan Ousmane Sonko mën na bañ a bokk ci gouvernement bi. Diomaye tontu na si président Diomaye nee na carrément Ousmane Sonko c'est un Sénégalais comme tous les autres Nous sommes tous ministre vice président donc à chaque fois on veut relier président Diomaye Sonko certes de le président Sonko fait terrain set na certes loolu Amna. mais Sonko xaalul dara. mais félicité <laughs> félicité nga ko ba tey. non. Ah. ñoom ñaar réeréwuñu benn yoon. c'est c'est c'est même c'est même c'est même paradoxal tey jii euh. ñuy xaar félicitation Sonko. Bah, euh, effectivement c'est paradoxal. non effectivement parce que ça, <laughs> waay dama la jox lépp. Ah, ñu ngi gis journaliste mais comme Ndeye Ndiaye di génn naa lu Ousmane Sonko <laughs> félicité wul euh, ki nga xam ci moo di Bassirou Diomaye Faye. Lool nak fofu nak do fi indication quoi parce que dama fi ñëw pour appuyer le fi. je mm-hmm. pense que yaakaar naa ni ki nga xam ci moo Ousmane Sonko Bassirou Diomaye Faye soxlawul ñuy ñuy wax ba xam ndax Ousmane Ousmane Sonko war na ko mën

te tey jii Diomaye moo nekk. Eh, exactement léegi mu bëgg la laaj ban aperçu ngay am ci ni nga gisee ñi koy traité Diomaye ci physique am wala ci élégance am affaire yi léegi après léegi xam nga la tax ma bàyyi fia mu jox la mu jox la mu posé la. yére ah, ah, bi ndax sax ndax di bengul sax <laughs> xam nga Sénégal moom. Ah, asalaamaaleykum ñu ngi mbokki téléspectateur Sénégal 5 di nuyu invité bi di la dalal sëñ Fallou sëñ Mor. Mm. ak oustaz maa ngi koy ni ci côté caméra bi di wax ne élection yi jàll na ci jàmm. Mm. nit ñi mën a noppaloo ko nit ñi mën a nelaw nit ñi mën a lijjanti seen bopp. Mm. Euh, tellement que élection yi euh, sénégalais dem demoon nañ ci pression boo xam ne euh, kenn xamul woon foo foo féetee. da gis sax ay nit yoo xam ne ku ci mel ni ay photographe yu mag jëm nañ ba nag élection yi bu amee nañ ma woowee ay ay. Fatou Sakho ay ay Ibou Ndafa tellement que nit ñi gëmuñu woon ne élection présidentielle dina am mais surtout man question bi moo koy laaj rek euh, maturité bi xam ne gis naa ko ci jeunes yi. parce que tey homme yu bari dañ doon euh, classe ki xam ne mooy Ousmane sonk ak Diomaye nang leen euh, dem leen ngeen wax ak seeni ndaw ñu dem ut ay pièces mais gis nañ ne Ousmane Sonko li Serigne di waxee dëgg la dafa jàngal xale yi. c'est-à-dire que xale yu bëri faale wu ñu woon ay politique euh, bu bu élection jotee gone yi dañ daan tëdd seen toog seen buntu kër yor seen kaasu caayin mais xale yi bu ñu xëddee ñoom ñëpp kenn tëddatul. ñëpp pare nañ da gis ak ku def vidéo te pièce am ne lay bañ a ne waa APR liggéey ko pour mu bañ a voté ji euh, dama koy laaj rek nan la gisee li xam ne mooy jeunesse bi ni ñu taxawoo li xam ne mooy Diomaye ak Ousmane Sonko. Ah, jeunesse bi moom wax dëgg yàlla kontaan ci ñoom rek ndax lépp ñoom la.

parce que ils ont été stratèges depuis le début. ñoom ñoo wan génie naka lañ war a xe naka lañ war a xeexee naka lañ ci affaire bi mu aboutir tay mais 90% wala 80% vingt bi jeunes jeunesse ko def parce que ñom ñoo gëm président Ousmane Sonko parce que kenn gëmul won nak kenn gëmul won président Ousmane Sonko wala jeunesse bi gëm président Ousmane Sonko ba tay ji ñu nekk di xeex di xeex parce que gis nañ fi opposant yu bëri fi jaar état bi day def ak fraction de seconde de côté. ñu mais président Ousmane Sonko première fois bi ñu koy jàpp je crois deux jours trois jours la prison sa prison la nekk session de recherche après mu ñëwaat këram parce que réew mi moo doon taax. ñu ñëwaat encore ñu jàppaat ko même chose ñu nekk ci réseaux sociaux yi di wax réseaux sociaux yi tamit am liggéey bu am solo bu ñu def ci affaire bi manipulation mais am na ñoo xam dañuy joxe ay information yu leer man mi man mi bokkoon naa ci nga xamante ne vraiment dañu de les les bonnes informations je pense que suñu émission bi ñu defoon bi passé waxoon naa la combat bi combat bi loolu la foofu la ci dana ci euh, véhiculer information yi la waaw parce que boo seetloo ñoom ñii sax ñoom si commencé woon nañ jubilé ñoom ñoom jubilé woon nañ de mais li ma lay wax maanaam gis nga bu fi réseaux sociaux nekkul woon tey jii on allait être euh, est-ce que dinañ dem est-ce que premier tour bi dinañ bi ñuy wax dina am deuxième tour la ñuy dem parce que boobaa dañuy lëndëmal mais comme tey jii premier tour bi am na parce que gars yi ñuy ci dem photo PV yi muy circuler ci groupe WhatsApp yi gars yi di gis yow mën nga toog sa kër kal defal sa bopp calcul. Hmm. nga gis ne ah jumaay gañe na. Hmm. mais tey ji bu fekkonte ne tey loolu amu fi woon dinañ xaw a jaar ama am nañu guerre waaw am hmm. nañu guerre voilà vite fait ñu wax résultat yi nga xamante ni ñoom moom lañ bëgg dégg ndax boo seetloo Amadou Ba résultat yi ñuy wax bu am na benn affiche buy génn Dakar nag gi la ñu gañe Ziguinchor mais yi nga xamante ne foofu lañ jàpp ne Sonko mun na ko gañe mais yeneen région yëpp ñoom ñoo ko gagné te demeewul loolu. mais Kaffrine ñoo ko gagné Kédougou une partie ñoo ko gagné Matam ñoo ko gagné. waaw ah. mais Sénégal. Hmm. <laughs> waaye tamit ñoo ko gagné dëgg la ñoo ko gagné waaye gagné ak écart. Hmm. bu ñuy gagné ni dañuy topp. ñoom bu ñu eh, fu ñu fu ñu am 100 ñun am ñu fa 50. Hmm. est-ce que comprendre nga du 101 ni 102 150. cent trente cent quatre vingt ba ci bu ñu ñëwee nag suñu bureau yi nga xam ne ñun foofu la ñu amee doole. ñoom fa la ñu amee ay un ay deux ay trente ay vingt moo tax ñu raw leen. parce que parce que parce que écart yi moo doon bëri non Touba moom. macha allah Touba Cheikh Thioro Mbacke moom ak euh, Serigne Assane hmm. Mbacke.